voilà dañoo nekk fi tey Théâtre soraanu pour euh, benn euh, fête boo xam ne sargal bu ñu tàmm di def at bu jot di ko defal xale yi ak enseignants yi ak parents d'élèves yi euh, dañuy sargal xale yi nga xam ne dañu am ay performance ay résultats yu yu baax ci seen école ñu ràññeeku ci seen école yi ci seen liggéey di sargal également enseignants yi ràññeeku bu baax ci seen liggéey ci seen école di sargal parent d'élèves yu ràññeeku également ci école yi ci taxawu bi ñuy taxawu école ak enseignants yi ñooñu dañ leen ni dafa am comité bu leen tànn ñooñu ñëpp ñu xaar ba fête bi comme ni tey ñu féete leen fête bi tamit dañ ci profiter Euh, di sargal également enseignants yi nga xam ne dañoo retraité ndax dañu am ay enseignants yoo xam ne dañuy def ñii 30 ans la ñuy def fanweeri at ñii euh, fanweeri at ak juróom ñenn sax da jege ñeent fukk at seen dund boo xam ne lépp école lañ koy lañ koy lañ koy jox bu ñu demee nag ba retraité dañuy toujours bëgg woo leen gërëm leen sargal leen euh, ñaanal leen retraitu jàmm voilà loolu la daal mooy solo fête bi ñuy def tey